ay ca mbokk internet yu sunu gaal 24 mbégte bu yaatu la ñuy am ànd ak yéen ci euh, doxantu nemmeeku bi nga xamante ni li olofay wax lu def waxu luy ay di njàmbat état bu Sénégal daal décrété li nga xam ne moo di couvre-feu euh, ñu nemmeeku ne démb moo doon premier euh, jour bi à partir de vingt et une mu mel ni passé nañu guddi bu njëkk waaye itam ñu gis ci fi nga xam ne moo di diwaanu Ndakaaru ci ay gox yu bari euh, askan bi di population bi wàcc nañ wane li nga xam ne moo di seen ñàkk ànd ci li nga xam ne moo di couvre-feu boobule waral tey Sunugal 24 ñëw fii nga xamante ni moo ci parcelle la ñu nekk fas yéene jàkkaarloo ak askan bi laaj leen ban gis-gis la am ci couvre-feu bi nga xamante ni na ci gannaaw mbas mi nga xamante ni moo di le coronavirus ñu nekk ci deuxième vague état bu Sénégal gis na li ñu ci mën a génnee lenn rek la mën a doon muy euh, euh, respecter le mesures barrières waaye tam euh, war a indiwaat li nga xam moo di couvre-feu à partir de allah vingt ñu war a dugg ànd ak Libaas Mbaye ci caméra bi war a laaj ñi nga xam ne moo di population bi ban gis-gis wala boog ban jàngat lañ ñu mën a defal ci li nga xamante ni mooy couvre-feu bi nga xamante ni état bu Sénégal delloosi na ko à partir de vingt une une heure bi yow ban gis-gis nga ci am. couvre-feu moom ànduma si benn yoon d'accord ma si de. pourquoi pas àndoo si. parce que nañ bàyyi ñëri ñu dox ñu faj kii mais couvre-feu Dakar Thiès li ko waral mooy dañoo gis ne mbas mi di Covid 19 bu ñu xoolee lu mat 90 pour cent mu ngi diggante Dakar entre euh, Dakar et Thiès est-ce que kon doonul yoon itam ñu def couvre-feu. mais mais Dakar ñoo ëpp ay cas dëgg la mais couvre-feu moo moo yoon quoi. kufru moo dul yoon mais réaction bi nga xam ne nii. tëj nañu seen kër yi mënuñu tam fenn gars am na yoo xam ne ay nitu guddi lañ kon sama genre yi. nitu guddi mooy lan. waaw xam feebaru loolaa loolaa loolaa loolaa doon laajte maanaam feebaru guddi lay dox wala bëccëg. mooy mooy noonu. <laughs> loolu la waaw. coronavirus bi. parce que du ñu gis seetee kii léegi depuis daaw presque mën na at léegi affaire baa ngi gën di gën a takk takkarnaase di di di law di dem. et puis que mesures yi ñu jëloon teg ci pour ay distanciation euh, sociale euh, ak euh, kii comment por port port du masque surtout gars yi nangu ñu respecté kii bi kii comment ça s'appelle recommandation état bi. de ce fait nag léegi bu demee comme que kii ne surtout à l'intervalle de presque de deux mois on a eu presque je ne sais pas une vingtaine ou trentaine de morts presque. pieux xam nga kooku sa dafa dépassé dafa jéggi dayoo bon président de la République du mu xoolee situation bi mu xam ne muy gën a garaaw ci la door a jël kii am euh, euh, matuwaayam pour euh, dellu si waat couvre-feu bi pour bon couvre-feu bi baa ngi démarré nag dembu de yaakaar naa ban démb mercredi de couvre-feu baa ngi commencé vingt une heures war a jeex cinq heures du matin mais il s'est trouvé nag euh, gars yi surtout xale yi nu ñuy demee ba presque ay dix-neuf heures yooyu vingt heures ñu ci mbedd bi di di ay pono di di di di di yàq ay kii je ne sais pas édifice public xam nga kooku nag kooku kooku dépasse dépasse ñuy bëgg a dépasser borne. waaw ah, kooku fa bi. waaw ah, mënoon nañu avertir population bi à l'avant ah, pour ñu jël suñu matuwaay avant mais comme nii nii nii rek waaw dañu moom dañuy respecter suñu suñuy autorité rek liñ ñu wax si lañuy wéy seen ndigal rek loolu rek moo si nekk ah, wéyee ndigal bi. dëgg mais ginnaaw boo xamee ni tàmbali nañu ko niki démb gis nañu ndaw Sénégal wala boog surtout Dakar lu bëree bari manifesté wu ci mbedd mi surtout bërëb bi ñu nekk daanaka ban gis-gis nga am ci réaction boobu. a ah, manifestation yi moom du yoon ndax loolu moom reewande la moom muy muy man ak sa keneen si bokk yem kenn wa amul droit génn naa da ngay taale dangay ngay lii moom nit moom bu ñu la yaree war nga am benn comportement boo xamante ne ki génn di taal sax du yoon waxtuma laa nga ngay taal ay méeréeg di yàq oto jàmbur yooyu loolu moom c'est de l'indiscipline moom kenn àndu si moom moom muy man ak keneen si bokk yem nous sommes tous fautifs nga tudd oto boobu nga xam ne toj nañu ko dafa mel ni loolu information bu ñuy dégg la est-ce que lu wér la. waaw lu wér la bëri na fi bëri na fi am na suñu grand yu bëri da gars yi dem booy dañu toj seen oto yi te dañ leen discipline bu ñuy toj nañ toj oto oto gouvernement bi ñu bàyyi oto jàmbur bu dee moom en plus tamit bu dee ndaw yi dañuy ñemee dëgg jarul ñuy ñuy génn di dawake lii nañ génn affronté gars yi nañ nañ génn jàkkaarloog gars yi bu dee dëgg la. mais par rapport ak seen liggéey amul lenn lu mu leen di yàqal. non non non non ñu ngi sant bu baax moom ñu ngi suñu liggéey ñu ngi concentré wu ñu ngi liggéey xëy wàcc dem ñibbi. waaw maa ngi nuyu Sénégal yëpp maa ngi nuyu taximaan yëpp di leen massaw man maa ngi bokk taximaan yu église yi garage Mor Ngom unité 10 église ba foofee laa bokk euh, ni ma ko gisee ah euh, métti na trop. métti na trop lii euh, balaa état Sénégal doon jël décision yi mu jël waroon na see mën a def jàngat xool ba ñun taximaan ñu gis suñu bopp mais xam nga ne jékki-jékki rek na ñu heures ngeen di gaare métti na trop si taximaan yi métti na trop foog na te weesu na ko te jamono ñu toll dëkk bi dafa mës a métti dëkk bu métti woon nag jamono maanaam àllum neen nga xëy xëy nii rek ñu bëgg dóoraat ko couvre fa sa kaw métti na trop te man li ma bëgg Sénégal yëpp bokk si xam maa ngi ñaan ñëpp nañ si bàyyi xel dëkk bi dafa métti. dëkk bu métti nag da ngaa war a yërëm sa askan mais doo def lu leen di sonal couvre-feu balaa waa ji di ko teg na def effort jéem a taximaan yi dara defal leen dara mais amul benn taximaan bu ñemee wax ne man état Sénégal jëriñ na ma dara si ndimbal luñ ko mës a jox yaa ngi dégg pour mu mën ñoo def loo moom lim ñu bëgg a def muy couvre-feu mais couvre-feu balaa nga koy def nit yow mais jéem a la sa askan dara jëriñ leen dara mais ñun jëriñu ñu dara man am naa si droit yaa ngi dégg. am naa si droit wax ne ñun jëriñu ñu dara ñun ñoo yor suñu bopp ñoo yor liggéey respecté leen nag ñoom kon nañ ñu respecté te maa ngi lancé appel takk yi ñoom nan xam ne ñook ñun euh, civil yi ay doomu ndey lañ suñuy rakk a ngi seen biir suñuy mag a ngi seen biir bien vrai que ñoom dañ leen a yilif mais nag nañ xam seen bopp na rafet nañ bàyyi doomi jàmbur yi ñuy dóor nañ bàyyi taximaan yi ñuy dóor ñun ñooy ñun la après yaa ngi dégg ñun la après kon ñoom bu ñu leen sante yi ngir doxalee leen ñoom seen mission na rafet nañ bàyyi dóore yi ñoo bokk ndey ak bàyyi na nice ministre de l'intérieur na bàyyi xel li muy def te xam ne jamono bi ñu toll jaaruwaay la rek nañ def jàmm na jàmm am jàmm am mooy nan rafetal seen diggante ak askan wi bàyyi suñ moromi yaay yi ñuy dóor suñ moromi bàyyi yi ñuy dóor taximaan yi ñuy buntu xataal di leen ñàkkal fayda di dóor sëfoor si nañ leen teg si yoon heure bi ñu joxante nañ ko joxante te ñu may sëfoo si aafiya li fekk lii di réglé nañu may sëfoo si aafiya bu ñu leen vingt et une heures mais sëfoor bu jógee dakaar jëm si parcelle lu yor client am embouteillage bi téyee ko si yoon bi nga bëgg ne ko vingt et une heures jot da ngay gaare mais nu muy def client yo day fanaan ñoom si taxi bi non nu muy def nu muy def boppam day fanaan si àll bi no bu fanaan ñu agressé ko nan may nit ñi batma te ñu def te yàlla tax ñu wàcc. waaw xam man de gis-gis gi ma ci am mooy feebar bi moom dëgg la. waaw war nañ jël suñuy mesure war a jël suñuy proposition waaye pour président daan dimbale ñu rek xam nga ne ñun dañuy jaay di fortaat te danoo jaboot te dëkk bi neexul bu dee dee def couvre-feu tamit mu yokk heure bi rek tuuti rek. yow li ngay demandé mooy ñu yokk vingt et une ñu yokk vingt et une bi même bu ko defee vingt trois baax na ñun ñuy foraatu par guddi ñu mën a foraatu dara ndax man mii damay jaay kafe ba cëggi guddi gi damay jaay ay reer bu ñu ko yokkee daal dina baax ci ñun waaw loolu daal lañ bëgg président def ko. incha allah rab waaw waaw 23 heures ñoo ñu mën a yëg suñ bopp te nit ñi tamit ñu jël mesure barrière yi ñu santaane di takk max di def distance waaw dina ci baax waaye gis nañu ndaw yi koñ bi démb wàcc si mbedd bi wane seen ñàkk ànd ci euh, couvre-feu bi réaction boobu ban jàngat nga ci am yaay booy waaw mam ñoom tamit xam nga xale yi rek dangay ngay waaru da seen gis-gis dafa xaw a gàtt mais mënoon nañoo bañ a génn ndax comme président dafa def couvre-feu ñëpp mun na ñoo toog seen kër ndax it te président bu defee couvre fa day sàmm ñëpp ndax dafa bëgg feebar bi feebar fi mu ne dafa law feebar bi la bëgg rek mu arrêté wàññeeku waaw mbala mu far sa doxi fi jeex loolu rek la bëgg du dëgg kon na xale yi nag ñoo war a xam seen bopp ñoom tamit dugg ci kër yi toog ci kër yi te xam ne président bu defee couvre fa dafa bëgg ñëpp am jàmm du dëgg waaw loolu la daal na xale yi daal toog te bàyyi président ak décision waaye daal nañu dimbali daal yokk heure bi rek tuuti rek ah wax dëgg yàlla di loolu moom boo gisee ñu koy def à cause de feebar bi la rek dañuy ñaan yàlla mu jóge fi bépp moyen ba ñuy def ba nga xamante ne fi teel a jóge daal moom moo gën waa na nekk loo xam ni day sax parce que am na yenn yooyu buñ ko deful rek ëllëg bi conséquence suñu kaw lay këpp moo ko feebar boo xamante nii baaxut day rey te bakkan ñu ci rot bëri na xam nga dañuy ñaan yàlla am pexe boo xam ne nañ ko def ba mu jóge fi waaye dem di yàq wala dikk yooyu yëpp jaru ko xam nga comme vingt et une heures la ñu wax xam nga ba six heures matin dañuy muñ rek xam xam ne dina yeex xam nga parce que léegi ñuy toj di yàq loolu yëpp suñu yëfu bopp la ëllëg ci biir ñun ñooy soxla su boobaa ay jafe-jafe lay doon xam dem ci ay maire di toj loolu yëpp du yoon parce que suñuy kii dafay nekk yeneen ak yeneen kon jaru ko xam nga boo gisee Macky Sall di ko def a cause de feebar mu jugee fi rek xam te loolu buñ ci jugul ëllëg ci biir suñu kaw lay këpp xam waaye nag bu ñuy defar ñii di yàq loolu baaxul xam lépp loo gis respect def cee baax il faut ñu respet sunu ñu respecté sunu bopp lu loi bi santaan ñu ñu tënku ci xam ne sunu arrangement bopp la xam mais bu ñu yàq ëllëg ci bi constat suñu kaw lay këpp te jaru ko kon boo nan delloo suñu xel xam ne ñun ñoo mën a manqué suñu biir jàppante xeex feebar bi jóge fi waaw loolu daal mooy loolu moo nekk sama gis-gis man. voilà gannaaw euh, couvre-feu bi gis nañu ne réaction bi nga xam ni ndawu Sénégal yi amal nañu ko fu bëri ci biir Dakar euh, surtout fi ñu nekk rek lu soriwul dara muy taali pono waaye itam wane seen mécontentement muy ñàkk kontaan gu ñu am ci couvre-feu bi est-ce que réaction boobu le doon na lu la neex. non lool moom neex wax dëgg yàlla parce que taal pono yooyu yëpp loolu du yoon xam sunu dëkk la te taal pono yooyu mun na fi yaakaar leneen lu bokkut ak loolu kon jaru ko.